fi nga jeexalee <clears throat> yëpp dafa am euh, solo euh, euh, rawatina nag li nga wax ci Pape Alé man mii ku ne xam ne ne d'accorduma torop ak ay yëfam te loolu leer na ñëpp waaye ci moom laa gisee dama dugg rek Facebook ma gis mu annoncé moo tax ma sànq waxee ba nga ma xam ne ci moom laa gisee waaw loolu nag lu lu lu lu lu rafet la loo xam ne dafa naa mm, du lu bees lu war a bette ci euh, euh, Pape ñu koy ñu la koy jaal yow itam sa euh, wóllëre boobu génn àddina te dafa naa ni nga ko waxee ak taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci xalifa Sall mi nga dafa voyagé loolu tamit ñu ngi jàpp nañ ne dina mate li nga wax nag ci soxna jaaga euh, danga ma marché danga ma marché sur la langue ndax moom laa bëggoon a jeexalee euh, li nga ci wax moom kenn ci doole dara man li may ñaan rek mooy yi xew léegi te gis naa sax sànq ci TikTok bi voilà ñu def ci communication man foofu laay gën a accès euh, li ma wax ndaxte yi xew léegi Sénégal li ma wax tout temps man ne man bokkuma si le suñu futur président de la république man li may xaar ci moom du ci ay infrastructure ak yooyu mooy jikko yi ñu defaraat jikko yi euh, yërmande bi ak sunu sénégalité ñu gën ko ñoŋal ndax euh, léegi euh, ngay gis ku génn àddina keroog ñaawlu naa lool lool lool te mu ne te nee na la ustaas xaw ma naka mbay tam nekk seen TV mm. di teg audio kii jaaga Euh, xaw ma ne tam seen TV daal ne mooy pa kii waaju du sax pa moo Mouhamed Mbaye voilà waaw xam nga yooyu vraiment euh, man dama ne woon euh, damay xaar ba fii moo tax li nga wax si jaaga danga ma marché danga ma vraiment sur la langue te fa kii pape yi may wax nii nag ngeen dagg ko ndax defe naa ne buñ moo tax li ma la Sénégal ñun dañoo war a xolaat suñu bopp parce que bu ñu demee ba ku tudd ku tudd ku ñu ku ñu woowee oustaz nga gën a nga gën ñu xam diine ñu yaakaar ci yow pour nga euh, gën ñu euh, yee ci yaruñu yeeñu ci yonent bi li mu digle euh, ak li mu tere mooy doo deux point zéro yooyu mooy yàq lépp mooy bëgg bës ndaxte yow nga taxaw di soxla di prouver ne ki génn àddina yow seen diggante nga waya di am manqué bu doy ne man mosuma gis loolu ci àddina oustaz toog jël ojo vocal xalaatoo mm-hmm. yow sutura ka ka la yónnee vocal kenn mësul déggu dégg vocalu ba muy dund kenn mësu kenn mësu ko dégg ci dara kenn mësu ko nekk na fi li ñu naan li ma li ma temps ne yaayu ñoom Balla Gaye yaayu ñoom Modou Modou Niang nga xam ne euh, nekkoon jabo soxna mbër mm-hmm. nekk yaayu mbër moom jaaga mii dafa nekk soxna euh, ku siiw woykat nekk doomu ku siiw Euh, nekk yaay ko siiw te kenn mësu ko dégg si dara. lu ñàkk baayam siiwoon. baayam siiwoon voilà. moo waroon mën voilà donc loolu yëpp mu yore waale ko <coughs> euh, suturaal boppam ba ni mu génnee àddina. yow dèjà waajooju man oustaz boobu li ma gën a naqaru suma mooy premier jour décès presque site yëpp youtube yëpp moo fa feeñ. sit bu ne mu wër fa di dagg boppam di wax li mu di prouver li mu sëkk ak ndaw si waxoon na ma lii wax fekkoon naa ko lii fekkoon naa ko faa kenn déggul ci moom mu taxaw yee ñu ci yàlla sunu borom bi li mu wax ci ku ku dëddu njaboot gi mu bàyyi ci ginnaaw yan ñaan lañ ko war a defaral ak yu mel noonu waaye toog sol yëreem daraawoom bu rëy toog ci otoom mikro bu ko romb muy tagg boppam nii la ma waxoon nag defoon na ma lii wak ba ma demee màkkaak ba ma defee nii mais sa nag de li ñu mini mooy moo tax ma ni euh, waa ñooñu ma dégg ñu naan ñu doon song Nabou Dash dañuy porter plainte Nabou Dash ñoo ñoo tam bëgg buzz est ce que groupe yooyu bëgg buzz nañ ñëw porter ma plainte man bëgg bëgg buzz topp ay waaye di topp ay ay Nabou kii la ñu war a topp seen seen nawle bii toog jël vocalu ku génn àddina dëj bu tooy xepp nit ñaa ngi jooy ay nga xam ne mënuñu sax xam naa support di gis image am bay déglu vocal yoo nga taxaw teg vocal boo xam ne da ci wax ci yow lay wax nga teg nga teg vocalam hmm. xam nga ni kon Sénégal ñun ñun ñu dañoo war a xolaat suñu bopp moo tax ma ne oustaz Mouhamed xaw ma mbay moomu euh, kooku defe naa ne tey ku ku jara lapidé ngi noonu lapidation bu nuy wax ku jara lapidé ngi noonu kooku euh, ku wayadi la nit sew la nit ku tekkiwul dara la te méritéwul ñu koy tuddee ñu koy woowee ustaas ndax amul daraay diine amul daraay ustaas te loolu mu def réew mi yëpp man maa ngi doon xaar groupe ustaas yooyu jógoon naan dañuy porte plainte ay toog toog di déglu ay nabudage naan dañ koy porter plainte ñoo war a wax wax ak seen bopp na wax ak seen nawle boobu nga xam ne moo fi def lu benn ustaas mës sa def moo fi def loo xam ne ku ko fi mës a def àddina ŋàbb la te defe naa ni comme nee na dafa tekk yàlla yàlla suñu borom bi léegi do léegi dootu lebale kenn dootu ko bippe moom moom dina ko wan boppam donc loolu ma ma ma ñaanaale tamit ne li fi xew mooy ku génn àddina euh, ñu lay fotoog di la vidéo sopp cercueil baak sopp nàngam nañu suturaal ki dem suturaal na boppam yàlla suturaal ko ba mu ba mu ba nañu fàttaliku ne ñun ñëpp dañuy dem te am na anam boo xam ne boo ci génn boo boo fa tolloo doo ñaan yàlla kenn gis la mhm. lu dul say mbokk te lu mu soxla mooy li nga wax léegi amu ñaan ñun ñëpp nañ ko gunge ki ñaan gunge bi nag waxin la déggin la laaj mooy man jàpp naa ne soxlawul àddina yëpp di màbb di dem fekk ji fa ndax loolu mooy indi dérapage li ñu soxla mooy kenn ku nekk nga toog sa kër mhm. téyal ko fukki xalwaaw ak benn onze lixlaas teg teg ya def faatiya jiital ya teg tegal ko fukki lixlaas ak benn mhm. tibb ko sa xol defal ko ko àddiya ndax buñ ko waxul woon sax ku ne xam na ne moom yàlla suñu borom rek la doon dund moom bàyyiwul woon boppam waaw woon boppam da dégg naa tam keneen koo xam ne jarul sax ku ñu wax may wax turam mu taxaw naan ay ba mu ba muy tabax bàmmeelam mu tëdd di nalaw ak si bàmmeel ba laa doon nalawee xam nga vraiment loolu yépp bëgg siiw ak ut buzz euh, moo tax ba amatuñu benn valeur moo tax ñun lu ñuy xaar suñu président bu njëkk ba mooy mu mu bi bi war a ñëw. Mhm. mu fexe ba restaurer ñun suñuy valeur yi ñuy perte. non site yu ndaw yooyu di utee vue. ak monétisation YouTube ci génnu àdduna kilifa yi. waaw c'est grave. xam nga julli mbooloo julli mbooloo yërmande la. Mhm. parce que li tax ñuy soxla mbooloo mi jullee bi yërmande la. ndax dina am ku ca yàlla feeñal. waaye foofu du lu ñuy wane. non mais comme par exemple manifestation bi am dëj am neneen ñoom ñëpp ñu indi seen i réseau indi rien que rek objectif bi ñu am mooy. lii bës la waaw oustaz 2 point 0 yi tamit. nitu diine du mottalikoo ci ay star. waaw mooy wala euh, di mottaliko gis naa ñuy xulloo sax ci affaire Louga bi ministre bi dafa ma dàq dàq waaw waaw gis naa waaye oustaz nitu yàlla dëgg Modou Fall la nitu yàlla dëgg wala nitu daara dëgg ay dafa ñëw toog ak dama gis nga yooyu doo mottalikoo ci bërëb yooyu parce que li may wax naan daara ak diine ak tarixa ñooy star yu dul fay mais nag ci kaw nga xam sa bopp mais xam ñu seen bopp ci kaw nga bu sa bërëbu sa daara wala sa bërëbu ah, diwaan kenn du la fa fekk di la yàpp moo tax pour man nit du mottaliku diine kenn du ko mottalee ci mbirum star dans les normes nitu star yooyu ak nitu woyka ñoo waroon daw waaw dina fekk saasi pour ñu leen di gindi pour ñu leen di jàngal waaye léegi yooyu ñoom ngay fekk ñuy taxawal ci kër oustaz mais xam nga ne boo gisee loolu dafa dafay tuutal diine oustaz yooyu oustaz euh, Modou Fall man mais xam nga ñooñu c'est des animateurs religieux waaw oustaz parce que oustaz mooy kiy jàngale ñun dañuy jiw parfois ci terme bi c'est des animateurs religieux mais ce que euh, ñu jum ci terme euh, abu xam nga li gën a ëpp solo xam nga yàlla sunu borom bi moo xam ban ban ban ban jaamu yàllam lay nangu ñoom ñun Sénégal bu dee dans dans le langage populaire euh, comme ni ñuy waxee ku solo blouse ñun la docteur donc loolu am na waaye li am solo mooy ñu ne la sëriñ voilà mais am solo mooy ñoom seen bopp muy man oustaz Modou Fall euh, def naa une fois laa ñu lañu mës a gisante xaw ma deux fois miinante wuñu ñu euh, tout waaye man li may wax ñoom ñëpp la ñoo ko bokk dama wax ne ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp topp ay réseaux sociaux bëgg ay buzz ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo wàcc seen ànd moo tax ba ñu demee fekk politiciens yi fa ñu toog ñu ñu toroxal leen dañ leen toroxale parce que dem dem di wër kër waykat man dama leen gis ñu toog ci tiktok bi ay way way waykat nangam may na ma xaalis bii waykat nangam defal na ma lii Marème Faye Sall defal na ma laa ci ay oustaz ñu ñu ñu woy oustaz yow yow bu ñu la woy oustaz da nga yow te fekk au fond nekk oustaz sax yow da war a fexe ba mérité tur bu ñu lay woowee waaye Sénégal mooy yàqu-yàqu boo xam ne ay vues ay monétisation ay bëgg siiw ay bëgg ba que tamit Sénégal aussi pour nga exister. Mm-hmm. Euh, il faut nga nga nga am tur. Mm-hmm. léegi nag y a des gens yoo xam ne nu ñu amee tur gënal na leen ni ñu koy amee baax na mais damaa defe ne diine nag wax dëgg fa yàlla boo demee ba ñu ràññee la ci diine yow euh, euh, defe naa ne yàlla bu bu ñu génnee àddina defe naa yàlla yat bu mu ñu war a door ñun ñii ba muy dóor ñee nga xam ne ñu sax ñun mun nañu am excuse ne. xëy na suñu jàng soriwul ak yooyu waaye ñoom ñee nga xam ne euh, jàng nañu diine jàng nañu alxuraan xam ne lu yàlla lu yàlla wax ba pare ñu nekk ci yëfu àddina di mbubboo diine di def loo xamante ni ñi nitu nitu nitu zaay duñ ko def loolu c'est une humiliation man kii Mouhamed Mbaye mais wax dëgg fa yàlla nit ku doyadi la ku tekkiwul dara dara dara dara te maa ngi xaar na ustaas yi taxaw topp di seetaan ay ñoom ñëpp ñoo yem ndax ku seetaanul Nabou Dash doo xam la mu wax ba nga naan yaa yaa yaa sa temps bu di wut buzz naan da ngay dem porte ji plainte yu yëfu yëfu ñàkk fayda man man daal vraiment Sénégal man. Euh, euh, on a a perdu daal Sénégal. c'est tellement vrai ah, ñàkk fay toog di seetaan ay ay nabu daaj balaa dañ porte plainte. dañ ci war a seetaat amuñu lu ñu def. te c'est vraiment bëgg bës bëgg tur bëgg siiw bëgg boo génne ñu Abou Diallo ngi nee. ñiy wax ci te yow nga war a doyloo yàlla wéetal suñu borom jaaga xam boobu jaaga fekk na dara chaque jour nga taxaw ku génn àddina man mi tey <laughs> Abou Diallo tey Adama Fall gis nga tey ji su ma génnoon àddina tey hmm. da nga gis seytaane yeeg fii parapax yi toog taxaw tey seen micro yii waaw Aïssatou di démb defoon na ma nii hmm. Aïssatou ku baax laak hmm. ku lii la di fen fen yoo xam ne yow yow fàtte nga ne ki ngay fenal génn na àddina ay mbokkam ñi ñi ñu xam ba di ko di ji ngay fen fen yoo xam ne te lu tax ñu les gens non pourquoi les gens dans les médias pour pour fen pour parler de de quelque chose les garabu garabu ustaas yi mooy ñi nga xam ne xam par exemple ustaas sax li li nga wax ci yenn ustaas yi mooy prédicateurs yi. Hmm. man comme ku mel ni Matar Sarr dama koy approuver parce que gëm na benn combat. Hmm. mais ci seen biir ñoom war nañu defaat lëlu biir. dëgg la ñu xam ñan ñooy jàngale. parce que journaliste yi boo laalee benn journaliste ñoom ñëppay taxa wax. Hmm. mais biir ustaas yi tamit dañoo war a defaat lël ñu xam ñan ñooy jàngale. ñan ñoo yor daara ak ñan ñoo ustaas ak ñan ñooy animateur ak ñan ñooy ustaas parce xam nga parfois dafay am phénomène bu am hmm. ka ko def hmm. sori na sax ak ustaas day dajale ay xale rek mais bu dee yow mi leen di défendre aussi bu ñu tuddee moomu ustaas rek nga génn te doo dem vérifier ji waaw comme liñ naan ñi journaliste dem nañ ba ut carte nationale de la presse oustaz yooyu tamit ah, war nañoo vérifier ñan ñooy oustaz yi ba pare ba pare doo nangu aussi ba loolu nañ ko mais mais beneen mooy ay satu site yi ay satu site yi yónni ay yooyu mhm. ñuy jël enregistrement wu ay nit ñu naan dama seetoon ba ma seetee diw dafa war a defee censure censure man de personnellement sama sénéra de la république bi su ma amoon ay moyens de la république parce que sénéra république bi dama ragal ni ña fa nekk dañoo ñeme ñoom politique yi rek lañuy topp ak débat ah, politique yeeg yooyu mais man sama général république bii ma yor sama correct bii ma yor man sama dox di ko doxee war nañu ni au moins ñu ut bu ma amoon ay outils wala ay moyens dinaa dem seeti ji ñu ne leen ut leen monnaie ut leen monétisation garaaw dañ ko fi fekk mais bu ngeen di ut nag ut leen lu barkeel hmm. mais nag mënu leen fekk ku génn àdduna. Mhm. mënoo leen fekk famille buy tas. Mhm. mënoo leen fekk coow kër. ngeen gën koo ngeen gën dugg ci biir. di tàllal ñi léegi dañu dem ba papa buy génnee ay yaay ay doom loo xam ne defaraat bi ëllëg. Mhm. xam nga gis naa ko waaw gis nga gis defaraat. gis que xuloo waaw defaraat ëllëg bi mooy tax. doom yi di wax dafay am génn àdduna vidéo dafiy des c'est grave tey coow am nit génn àdduna nga ne dañ ko kii woon dañu ko leneen yow foo wax loo xam ne mooy li ma la wax parce que tamit ñu mais mais Abou tu sais yow ñu am loolu c'est parce que boo xoolee ay genre Oustaz Modou Fall ak ay Mouhamed Mbaye yi espèce yooyu xale yu tuuti yooyu nga xam ne ñoo xëy suba rek fees del ci télé yi ñu naan la ay oustaz euh, bu ñu jógee xëy suba dagg leen dagg Pape Cheikh nekk ci di xamul di di fooye diine mais xam nga ne bu ñoo parce que ñu waroon a jàngale ñu mais imagine toi tey jii xam nga ne ñoo ñu dem euh, xale yooyu boo gis ñu dem xalaat ne dañu dem weer seen papa ak yow lu ñuy wax lu lan lan la ñuy wax ci parent ñu ne sa papa même bu dee bu dee day day màndi buy naan sàngara dama dama làq ko bu bëgg a béy nga dem jëndal ni ko jox ko mu naan. Hmm. loolu defe naa ni. Euh, moo tax nag lépp ci responsable média yi. ah loolu la amee loolu la amee mais mais mais yëngal si média tamit. defee. waaw waaw waaw waaw waaw. dama wax ni loolu man dama ko. waaw c'est vrai c'est vrai c'est vrai. responsabilité médiatique. sa doom si sa doomu kii bi ñu taxaw di. biñ ko defee biñ ko defee man day ma dem. man ma yàq xale xale bi yàq nga ko. ministère de la famille. lii moo waroon. mais ministère de la famille mooy c'est n'importe quoi. non xam nga lu tax non mais xam nga xam nga par exemple ñoom famille. njaboot gu génn toog xale tamit gis si loolu inspiré wu ci. Mhm. beneen bi mooy responsable de média ñi yor desk man jour boobu laa pare ci ñoom Moustapha Diop. Mhm. parce que ñoom laa imputé responsabilité boobu parce que desk politique desk bu amee ci kii bu amee rédaction. dafa war ay correction ñun ñii. man man Henriette Niang Kandji daf may corriger. Mm-hmm. Ah, Ibrahima Ba daf may daf may wax ni ni attention. terme bi duñ ko utiliser terme bi duñ ko utiliser Ibrahima Baaxum mooy mu ne dégg naa keroog nga wax ni Babacar Touré daf ma doon jël 3 heures de temps pour jox ma ay cours ay leçons ne ma li xew léegi damay bañ mu emporter la mais télé wala site xuloowu famille vie privée famille tey ba ko Walfadjri defee. dama ne leen yéen a ngi seetaan gis nga bi fi bi fi Gaston génnee di wax ci Barth ci affaire xeet ma ne leen ñi publier émission sortie bi nag xanaa émission bu paree kilifa yi duñ ko déglu xool lan lañ war a dagg lan lañ war a censure direct yi dem ci yooyu mhm. ndax doo yóbbu ku responsable mhm. bu événement religieux li nga wax ci ay ñoom Modou Fall Pape si Pape euh, kii Pape Cheikh Diallo biy kaf di foo ku fonk diine bëgg diine du foofu ngay defee école waaye nag léegi dafa yàqu bu fekkee léegi oustaz yi Bouba Ndour seen patron mais Pape Cheikh n'a rien fait aussi parce que xam nga xoolee ne moom moom moom moom il est dans son rôle. Pape Cheikh voilà Pape Cheikh naa dans son rôle. mais xam nga banalisation c'est un animateur c'est pas grave mais xam li grave mooy. mooy ñii nekk foofu. Hmm. di di foofu ba mais xam nga am nañ ay télé. am na Asfia am na Malikia am na. télé waaw mais mais duñ fa dem de. am na Al Malikia gis nga bëgg de télé école la ngi nii. ismu tarixee boobu Assane Mbuub dafa génne télé école muy instruit di jàngale mais tey jii nii bu ñu ñëwee man dama ko waxoon ci koor gi ma ne leen directeur programme tey mën nga télévision mën ma leen ko tere mais tey euh, Bouba Ndour bu nomee euh, ak Pape Hann jox ko benn émission ne ko yéen ustaas yi seen tribune la mm. waaye boo jëlee Pape Cheikh Diallo mm. muy def ay kafam ak ay foom ak yenn question yi di ko banaliser foofu nag la dëgg-dëgg fi nga interpellé ñoom ñoom Matar Sarr foofu la ñu war a wax mooy war na am seen koré du bopp boo xam ne ñoom ci seen biir ustaas yooyu nga xam dañuy profané wala ñuy banaliser wala ñuy permettre xale bi seetaan ëllëg Pape si Pape Cheikh mu toog ak benn oustaz animé suba mu gis Pape Cheikh Diallo mu animé musique wala Youssou Ndour xale bi day débuté def. du mais foofu moom amul non non mooy xam nga na nu muy interpréter dara mu gaañ ko. mais lui naa ne fii. mais xam nga bu nangoo toog. bëgg bëgg parce que tamit oustaz boobu tamit nañ woon dëgg parce que Modou Fall dëgg dëgg Pape Cheikh moo ko siiwal hmm. Euh, euh, luy tuusal ba ba ba ba Pape Cheikh demee moom doon def émission mais gisoo ci euh, buzz donc ci Pape Cheikh la ñu gisee donc maintenant bu fekkee ne dafa dafa dafa toog ci Pape Cheikh te maa ngi dama am rendez-vous wax nga dëgg merci. mais mais mais loolu mi maa nekk ko def daal. non mais mais man Pape Cheikh c'est pas grave ci man man li garaaw. Modou Fall c'est pas Pape Cheikh Abou. Pape Cheikh est dans son Pape Cheikh c'est un animateur. mais eh, dans son rôle ay ñoom Modou Fall yooyu doo ko am fulla la fayda. mais moom dafa bëgg buzz aussi bëgg buzz li may wax rek mooy. moom nag foo ko fekk ci ay buzz ay kii moom mi wax da wax. xam nga lu mu ñeme ko wax. lu ne mu dugg ci.